Euh, mm-hmm. sëñ Modou Bousso Dieng ngi lay nuyu. soxna bu baax. sëñ ngay njiital jeune euh, chef religieux yi ci réew bu Sénégal nga chef religieux euh, di responsable politique ca Touba tey jii ñu bëggoon a waxtaanee nag lu jëm ci bërëbu sel boobe di Touba ñu gis ne démb ba tey nag ñu nga ci wax ci rek 5 cas testé positif ci maladie bile maanaam mbas mi di coronavirus gannaaw ba nga yëg xabaar bi lan la la yëf yi def sëñ Modou. mu ko yëgee soxna si euh, mett na ma rek comme nag su nekkoon feneen bu doonoon beneen jullit bu mu mën a doon parce que jullit lañu Serigne Touba moom jullit xam loolu mu dëkk donc euh, fu jullit nekk rek bu ko wér dalee rek na xari na ma mais dama njëkk a xalaat ne waaw ki yegg si Touba ki ne moo ko dal Touba kan la après vérification xamuñu ko ñu ne ab moodu moodu la bu nekk Italie nañ leen waaw kooku bu mu ñëwee fu mu jaar. Mhm. xanaa jaarul aéroport boobu. te le 6 mars la fi dugg. may leen mais aéroport depuis quand lañ xam ne virus baa ngi ci bi la bi bi bi le président defee conseil ministre de Palais lan la wax ne teg nañ disposition yi ci war aéroport bu ko fi dugg nañ xam dinañ la de dinañ la testé xanaa ñoom xamuñu ne aussi Italie mooy deuxième pays le plus touché du monde de cette pandémie. Mhm. kon lu tax nit jóge Italie te la ma ca naqari mooy kooku avion bu mu duggoon ay centaine de personnes ci nekk wala wala au moins une dizaine kooku xanaa jaarul aéroport ñu ne noo jaar na fakat ba sax ñu nga sew avion ba ñu nga leen di wari filmé mais leen non mais c'est après la mort mm-hmm. ñooñu bu leen di wari est-ce que mën nga xam fu ñu jaar fépp ku ñu yool ak kan lañ leen doon ak seen famille xanaa xanaa kon li président waxoon ne ñu teg nañ ci disposition boo xam ne ku dispositif boo xam ne ku dugg dañ la seet avant ngay dugg xanaa loolu loolu dafa dëgg c'est ça Mhm. ma ne waaw lool loolu nañ suñu responsabilité yi d' abord bu ñu rek Touba Touba rek ñu ne wéy am na cinq cas huit cas vingt cas wala yasubillahi taala la xadrallah wala samaha mais nañ suñu responsabilité yi est ce que feneen amul parce que waa ji avion ba ñu fa duggalandoon ñëpp est ce que amuñu parce que mënoo am corona bo nit avion vol bu duré cinq heures de temps ak mhm. avion ni fermé ba pare la ko. Mhm, mhm. mais nee nañu waa ji sax ñi mu bokkul na avion ñu ngi leen di jéem a seet ñu ngi leen di wër. mais am na daal ñenn ñi nga xam ni identifié nañ leen ah. pour def leen ay test. mais ñooñu boobaa ak léegi ñooñu fan lañ jaar. Mhm, c'est la question fan lañ ci dajal dañu leen xam. oui pourquoi état doit être aussi idiot que cela. pourquoi l'état doit être naïf que cela. pourquoi l'état le gouvernement qui doit prévoir parce que gouverner c'est prévoir. doit être négligent que cela. ñu may wax Touba corona nañ ma wax responsabilité bi pour mën a muccal ñi amagul ba pare. Mhm. ba justement pour pour euh, mën a sauvegarder ñeneen ñi ñeneen ñi bañ a euh, jotee euh, ci feebar bi sëñ Modou wax nañ ko sànq ci configuration bi nga xam Touba am na ko ñu gis ne ñu fay dem macha allah bëri na ñu ñu fay jógee tamit di dem ci yeneen i bari bëri na tey jii ñu ngi wax ni un million cinq cent mille habitants ñoo fa nekk ak le fait que ñuy vivre en communauté foofu mu nekk lu sacré ci dëkk ba ndax loolu warul tax nag ñu war a mën a am lu ñu tiit ak cas yi nga xam te ne nañ ko foofu. comme bu nekkoon Dakar wala feneen. parce que mm. corona moom propage vite. extrêmement vite même. Mm-hmm. kooku moom tiit jot na. mais nag tiit googu nag c'est que damaa ne ñiy wax ay intellectuel lañ man seen xam-xam dafa xaw a des ci tuuti ci ma su ma jàngat. yow nooy nekk intellectuel corona ñëw nga xam kor nga njëkk a xam d'abord liy gaañ fan la jógee mooy lan ba noppi nga soog a xam fan la jógee soog a xam ni ñu ciy mucce parce que tant que xamoo fan lay jógee mënoo ci mucc. Mm-hmm. tant que xamoo xam nañ léegi ne Chine mooy premier pays touché xam nañ ne Italie mooy deuxième pays touché xam nañ ne France mooy troisième pays touché mais soi-disant entreprise yii fi nekk ba kenn ku ne ku ne ñëw ne wëy dañoo war a dañoo war a aj màggal yi parce que ngir wattu propage bi ngir wattu dégg naa ko ci président démb ne wut màggal yi nag mais dana rassemblement yi war nañ ci def nag waaye ba léegi président n'a pas encore le courage de dire que je ferme vol yi jógee Italie jëm fii dama koy fermer jusqu'à nouvel ordre comme ni ko Trump defee Trump l'a fait hmm. européen yëpp sax la ko def moom mais Macky Sall n'a pas ce courage il parle que les gens intérieurs ça veut dire ci rassemblement yi la ñu fi ëpp fii de magal ya fi nekk ak sëriñ ak daayira yi da ngay wax mais amul fitu wax ne France bi troisième pays touché tey amul benn vol bu duggee France bu dugg Sénégal ñeme wu ko de. tey tey yow gisoon ni tey jii war nañoo mën a aj yenn ci ay cérémonie religieuse. mbaa boog déggoon dama ne. Hmm. dama ne c'est que il n'est pas intelligent. ngay wax maladie bi rek te waxagoo fi muy jóge bu ñu interdiroon l'ensemble waxuma la sax mu que xew religieux yi mais ñu indi te nit ñi ko ne jóge Italie ñëw te président amul fit mu fi wax ay intellectuel ah. occidentalisé yi ñu doon amuñu fitu taxaw mettre le doigt sur la France et l'Italie corona bi gën a bàyyi parce que tous les cas yi fi amagum yëpp c'est des cas importés mhm. lan moo tax le gouvernement ak ñi wax ñooñu waxuñu ci loolu parce que ñemewuñu tubaab yi c'est des gens c'est des gens mhm. daal li xam ne ak Touba nag ak Dakar sama mbokki Dakar boobu nga xam ne ay jur yu bëri fa nekk ak Dakar ak Tivaouane ak ñeneen lañ yàpp mais daal bu mais daal France daal intouchable Italie du ñu ko tudd Chine ba léegi am na ñu fay jógee dañu wax de ils ne sont ils ne sont pas honnêtes. Mm. ils ne sont pas sincères. ils ne sont pas des patriotes sincères comme disait c'est ça mon problème mais bu ñu honnêtoon wax ne nañ tëj Italie bu ñu fi dugg may la ne compte waa fi kenn daje les certains gens yi nga xam ne aussi xamuñu dara. soi-disant des oustaz soi-disant truc xamuñu tous naan màkka ñoom sax dañoo tëj defe nañ ne màkka moom lu mu def rek sunna la te xamuñu ne màkka est géré par un régime politique comme Sénégal comme Guinée comme feneen am fa valulence du fa nekk di Mouhamed Boun Souleymane bu jël ay décisions simplement politiciennes qui n'a absolument rien à voir l'islam nga defe na ñun dañ fee nekk def leen neen lu màkk def dañ ko war a def dañ xam lan mooy diine wala sax gën a xam màkk diine màkk li nga xam diine ba nga xam dañu war a référé ci màkk nga xam lu ñu def rek valable na mhm. nekkuñu foofu màkk mhm. ah. régime politique dafa nekk comme Sénégal mhm. ok sëñ Modou ñu gis ne tam chef religieux nga ma ma ma terminer sama logique soxna si donc donc kon su donc kon donc kon te ma leeral ne màkk aussi ubbu aaya wuñu rassemblement intérieur dañu aaye bépp rassemblement boo xam ne ay jàmm bi ci réew ñoo ko fiy def hmm, parce que dañu dend rek Iran Iran c'est tellement touché aussi dafa bari ay mort foofu ñoom tamit ci les pays les plus touchés lañu bokk même su fekkee ne cité ko donc kon ñoom dañu am dañuy def lu xaay dañu def dañuy def prévention l'islam la mais kenn du ko dugg te réew ma sañ nañ ko nag kiiwuñu aay wuñu ay citoyen saoudien ñu ci biir ñu dajaloo kon nag kon pourquoi ñu bëgg ko jël bëgg ko méngale ci aaya màggal ngir màkk je que c'est c'est c'est vraiment c'est très mm-hmm. voilà wax naa ko sànq nga chef religieux tey jii diine islam lan la wax euh, ci situation yu mel nii bu ñu gisee ne am na benn mbas bi nga xam ni ma ngay faagaagal ay doomi aadama euh, te rek euh, ñenn ñi dañuy dem ak dikk tey jii lan la ci diine wax loolu. l'islam lu mel ni amee. saawoon nag moo ëppoon ñu am mooy pes ak yooyu dañuy dañuy kenn ku ne da ngay toog fa nga nekk réew ma nga nekk mhm. da nga ci diggante ay réew ba mbas mi jàll mën nañ nekk juga moom baras xamlox dafa nekk dafa nekk marab munafir mooy benn mooy euh, maladie infectieuse dañ koy mën kenn bouger moo tax may ñaan ni ñun dal ci zone yi ñu nekk nañ toog mais buñ continuer ay tubaab nekk fi mu dal leen wax dëgg yàlla bu ñu doon bu ñu doon appliqué l'islam Italie benn italien dugg Sénégal benn français dafa parce que ñoom fi ñu nekk bërëb la bu ñu bu mbas ma nekk te bari fa te law fa waaye nag su fekkee loolu lépp amul nag. ñu bëgg ko koy jubali kër diine yi rek nag ci nag bëgg ci injustice booba vraiment sànnu rebel mi nga sëñ Modou Bousso Dieng euh, ñuy fàttali tamit ne euh, xalif général des Mourides am na lu ñu jotee ji ci suba ci information euh, di wax ni tey ji moom noppi na wala joxe na sax deux cent millions de francs CFA ngir jàppale nag ci xeex bi nga xam ne bëgg nañ ko xeex mbas mi di coronavirus également autre chose ñi ngi wax ni dafa dafay euh, mi ngi wax taalibe yi voilà ñu arrêté lépp luy ay ziara ak i rassemblement ngir rek ñu mën a contenir la maladie yow nan nga jàngatee loolu. rafet na parce que autorité sanitaire yi loolu la ñu recommandé dañ koy respecté xam nga amuñu ñu digal ñu xelal ku ñu teg ci yoon comme citoyen yëpp mais bëgg rek def rek ñu teg ko ci yoon yamale ko ci ñëpp di ko suñu jógee jox leen digal li autorité sanitaire yi wax yëpp nañ ko def. dañ ko respecté ñun ñëpp man mii rek xale yëpp maa ngi leen di jàppale dañ ko ay eau de javel dañ ko ay savon daf ma fekk génn mais dama rentré daar daar pour mën a ñëw gis na ñeen ñu ñu dëkk bi ñoo xam ne ñu koy def di ci xeetu ci gont donc kon xale bi mu wax dafa rafet ñun ñëpp a ci ànd hmm. parce que ñu ko xalif bi recommandé démb mais sëriñ bi wax na ñuy respecté ndigalu autorité yooyu su fekkee ne ndigal li teew ñoo jaamu yàlla effectivement loolu la sëñ bi wax loolu ñun ñëpp ñu ngi ci ñu ngi ciy mhm. euh, gis te tamit àndoo benn yoon ngir rek ñu annuler lii de événement religieux yi donc ñu ngi jëm ci 22 mars bi incha allah ci Kazu Rajab bi euh, tey fan ngeen yàgg ci wàll sensibilisation gannaaw ba ñu gisee ni ay milliers de fidèles dinañ fa teew foofu ca Touba. li sëñ bi wax rek mooy nañ moytu jaxasoo bi rek. nuyoo beeg je pense que le président euh, démb wax na ci bari ci nuyoo beeg. lañ ko dégg ñëpp dañ ko defee noonu comme nag comme nag lii nag affaire foi la affaire gëm-gëm la dinañ defee si nga ne nit bu leen ñëw parce que jox leen beneen avancé leen yeneen argument yoo xam ne si leeru leeru ci seen bopp loolu état amul pouvoir boobu état mënul ne benn citoyen bi dem benn benn bërëb parce que le droit de circulation est garanti par la constitution mais daal recommandation yi sëñ bi joxe nga xam ne moom la wàkkat docteur joxe ñun ñëpp ñu ngi ci te digle nañ ko ñëpp ñu képp kuy voilà sëñ Modou bu Dieng ñu ngi la jëfal bu baax a baax. ma ngi lay mhm, ñu fàttali ne yow yaa jiite jeune marabout chef religieux yi fii ci réew bu Sénégal ngay chef religieux également di euh, rek acteur politique foofee ca Touba. Mhm, jazakumullah xayran mhm, merci beaucoup.